الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi soppe yi xarit yi ñëwaat nañu ci jotaay bii di jaar-jaaru yonent bi wala jaar-jaaru yonent yi du yonent bi de jaar-jaaru yonent yi waa ab séeréer bu déggul olof la <laughs> ñu ngi jéggalu jaar jaaru yonente yi waaw ñëwaat nañ ci fañ leen tegloo seen baaraam bëgg ngeen teggi seen baaraam waaye di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp du ma ñàkk a tudd ñii nga xam ne ñoom lay bëgg a tudd seen tur ci ki ci jëkk mooy al imam Mouhamad Nazir wala alhaaj Mouhamad Nazir Gaye ci Kébémer yal na yàlla sàmm ko sàmm waa këram ndax bi mu seetaane doyul rek ci doyloo waaye dafa yëkkati téléphone am woo ñu di ñu encouragé te xam nañu ne borom xam-xam la ñàkkul sax am na ci ay njuumte yu mu gis ndax doomu aadama moom mook njuumte ñoo ànd waaye loolu lépp mu suturaale ko vraiment bàyyi yi nga xam ne ay erreur la waaye di wax yu rafet yi yal na yàlla fayal ñu ko kiñ ci tofal mooy suñu magu daara Ibrahima Ndong ci Dionewar ak waa këram ay soxnaam ak ay njabootam yëpp ki ci topp di suñu mbokk mu nekk Gambi ñu koy waa Ousmane Dieng ñu koy waa Ousmane Soxna Dieng ñu bokkoon daara waaye moom Gambi la féete moom itam bokk na ak ñeneen soppe yi yi nga xam ne daanaka tudduñ leen tase naag benn taximaan keroog mu wax ma dëkk bi daa fàtte mu ne moom foofu am na fa njuufeen <laughs> am na fa juuf ab juufeen boo xam ne daanaka saa yu ñu rek <laughs> mu tàmbali waaye may naa leen loolu jégal yal na yàlla sàmm leen te aar yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla barkeel leen incha allah taximan bi dama fàtte keroog ba jëlu ma turam kon ñu ngi nuyu ñooñu ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal te xam ne liggéey bi ñoom lañ koy liggéeyal kon mbokk jullit nii ak ñeneen ñi nga xam ne jotuñu leen a tudd te ñoom ñu doyloo rek bañ a woote waaye ngir rek la nga xam ne mooy di ci am su ko defee bu ñëwee ci fukkeelu jotaay bi ak juróom benn ñu war a tàmbalee ci ar rakiza asaniya rakiza saniya bi ci lan lay wax al mutrifuna hum aadaau daawa le bourgeois ñoom ñooy ennemi daawa fu mu mës a am ci adduna bi ñi nga xam ne yàlla da leen a jox alal alal bi am fu mu yegg ak ñoom fu mu leen yeggali daanaka du ñu bëgg lenn lu leen tuuse da leen di déranger rawatina nag du ñu bëgg a dégg yàlla nee na yonent bi nee loolu nag loolu kon mooy li nga xam ne mooy li am adda taraf bi aat ila al kibr wal istilaa wa tasawar anfusahum fawqa annaas ajmain wa abaw an yakuna hud alayhi salam rasulan ilayhim ñii nga xam ne ay bourgeois lañu woon ay boromi alal lañu woon bokkoon ci giir googu ñuy tuddee aad li jëkk ci ñoom muy réy-réylu gis nga mandarga bi yonent bi mandargaale rëy mooy batarul xaq wa xomtu nnaas xeeb nit ñi ak bañ dëgg xeeb nit ñi ak bañ dëgg wala bañ dëgg xeeb ki la koy wax daanaka moo dal ñi rëy réelu kawe kawelu jàpp ne ñoo war a féete ñëpp kaw mboole seen bañ ab yonente bu ñu tuddee huut nekk seen yonent wasala bihim dalal ila suxriya bi huut wa daawatihi ah cànkute ba yegg na ci ñoom yóbbu na leen ak mbewte ga yóbbee na leen ñuy reetaan di sabote di yëjji yonti yàlla huud ak wootem bi wa tahamu aqlahu wa xuluqahu wa tamassaku bima hum alayhi min kufr ñu tuumaal xelam ne xel bi dafa dese xel bi matul jikkoom rafetul ndax li ñu tuumaal ci jikko bi mooy fenkat la haasha loolu amul waaye ñoom ñoo def loolu ñu jafandu bu dëgër ci la nga xam ne moo nekk ci ñoom ci wedd gi ñu weddi yàlla wa axadu yujaadiluuna fi alihatihim bila dalilin min min al aql ñuy discuter Huud di weranteeg moom di dagge ak moom di défendre yi yooyu ci lu dul lay boo xam ne xel mun na ko nangu aw shara waaye loo xam ne législation la mutamidina ala quwatihim wa jaahihim wa ginaahum li leen yóbbee woon loolu kattan gañeen lan yàlla nattoo woon defal leen ko waaye itam daraja ba ñu amoon waaye itam askoom soo xam ne yàlla dénkoon na leen ko wa ala amwalihim bayna annaas min taqdir ci fi nit ñi fi leen nit ñi tegoon ci ki fi nga xam ne moom la ñu amoon ak seen alal ju bari ji ci kaw ci biir nit ñi inna alladina waajahu nabiya allahi huud birrafd waljadal hum almala walmuraadu bihim alayhi alqawmu alladina imtalaa xazainuhum bilamwal wa malau lmajalisa hadisan iradatu wa tawjihan wa malau uqula alama bildalali walfasad allahu akbar ma ne soppe yi xarit yi ñii nga xam ne ñoo doon gàllankoor huud jaamaarloo ak moom bañ wooteem bi rejeté ko di daggee di discuter ak moom ñooy ñooñu ñu tudde almala mooy notable ya mooy kilifa ya nga xam ne kilifa buy nekkee kilifa te amul diine amul xel kumu yilif daf lay yóbbu ci réer daf lay yóbbu ci ñàkk xel daf lay yóbbu ci cànkute te loolu mu feeñ ñooñee nga xam ne seen magasin ya seen ndamba ya fees na dell ak alal feesal seen jotaay ya fañ doon waxtaanee seen grand place ya seen nekkin ya ñee nga xam ne ñoo doon orienté masse bi ñoo leen doon yóbbu ci seeni xel di orienté seeni xel ci cànkute ak gu yàqu te li gënoon a yell ci ñoom mooy ñu déglu bu baax li Huud di wax ak ñoom gaawantu jëm ci gëm yàlla أن يسارعوا إلى الإيمان بدعوة النبي الله هود ولكنهم كذبوه waaye ànd ak ñoom dañ koo weddi wa chatamuhu dañ koo saaga yegg ci sax tuumaal ko ànd ak taxawaay bi mu am ànd ak lim leen doon wax baatu yaa qawm allahu akbar yéen samay mbokk yéen samay nit allahu akbar taxawaay boobu Huud amoon ba yàlla nettali loolu ci alquran qaala almalau alladina kafaruu allahu akbar qaala almalau alladina kafaruu min qawmih inna lanaraaka fi safaha wa inna lanazunnuka min alkaadibin allahu akbar la ilaha illa allah suratu al-A'raf aya 66 qaala almalau alladina kafaruu min qawmi qaala wax na almalau kilifa ya boroom kaddu ya notable ya ladina kafaru ñooñu nga xam ne ay yéefar lañu woon min qawmihi te bokkoon ci ay nitam ya nitu kan nitu huud inna la naraaka fi safaha allahu akbar nun dey dañ laa gis dañ lay xoole koo xam ne sa xel bi dafa des da ngaa dese wa inna la nazunnuka min alkaadibin la ilaha illa allah akbar ñu it dañoo jàpp ne yow dañ lay jortu jàppee la koo xam ne li ngay wax amut wax lu amut wax lu amut nitu yàlla nga di koy tuumaal loolu foofu la mbew te yëpp nga xam ne moo jikko yëpp mooy bi ci gën a bon Serigne Cheikh day faral di wax ne yal na yàlla jéggal ko te yërëm ko nee na mbooleem yu bon yi bu ñu dajaloo woon ngir seen bonaay bu ñu seenee fen di ñëw rek ñëpp ay daw tasaaroo ngir gravité fen boobu nga di koy tuumaal nitu yàlla kooku foofu la mbewte yem waaye teewul gis nga ko dañoo rep wa inna lanadunnuka min alkaadibin gis nga ko teewul lii la ñu wax suratul araf ayuha almuslimun wal aaqil an yatasaal ولما يكون الملأ منعمون هم قادة الكفر وأكبر أعداء الدعوة ما أنها تنادي بعقيدة حقه ومعاملة راقية وخلق كريم الله والجواب والله أعلم nit mën na nit mbokk yi soppe yi xarit yi walil aaqili an yatasaal ñe aji am xel aji xellu war naa mun a laaj lu muy laaj lan moo tax al mala ñooñu nga xam yàlla leen a jox alal jox leen xéewal mu doon ay njiit te yéefari jiite yéefari ba pare gën a màgg ci noonoo woote jëm ci yàlla ànd ak ne ki leen di woo woowu leen ci boppam da leen woo ci wéetal yàlla moom dong wéetal ci woo leen ci aqida jëflante bu kawe jëflante bu nite ak jikko ju rafet ci la leen di woo mais teewul ñu di koy saaga di ko xas tontu bi yàllaa ko xam waaye inna al mala yatamattacuuna bi mazaya adida fi mujtamaihim boo doon xool ñoom borom alal yooyu borom kàddu yooyu dañuy bànneexu ci ay mbir yu bari ci ci seen biiru société wala seen biiru askan mu'tamidina ala qahri duafa sukkandiku ci néewal doole ñi nga xam ne ñooy ñooy ñi néew doole mooy ñi ñàkk way ñàkk mooy ñi néew doole wa stibaadul fuqara ñi nga xam ne amuñu dara ñu jël leen def leen ay jaam comme ni mu doon xewee est-ce que loolu dellu si waatul tey mbokk yi yasuus yasuusuuna al aama bi ilhaihim wa ibaadihim an il xaq ñuy doxale di gérer seen seen ba seen cité ba seen politique ci seeni dem defle soril nit ñi dëgg soril leen njub ولذلك تعد الدعوة mutaarida maa wadiyatihim looloo tax itam du ñu mën a xam du ñu mën a nangu keneen di wax leneen lu wuuteeg loolu kuy woo nit ñi pour ñu libérer leen kuy woo nit ñi pour ñu ñu ñu ñu teg yëf ci njub teg leen ci ci ci mandu teg leen ci li war a am kooku dañ lay noonu ndax da ngay yàq seen i intérêt dañuy yàq seen i intérêt fokk ñu diaboliser la fokk ñu yàq sa tur fokk ñu fexe ba taxé la loo xam ne ku ko dégg dar noppam man laa sori kenn du la mën a jege loolu bu fexewee tey du tey mais démb woon démb woon mbokk jullit ñi loolooy li am looloo tax na kon mooy li nga xam ne wa hayaatuhum fala ajab an kaanu akbaru aada yéemul doyul waar itam pour ñu nekk ñi nga xam ne ñoo gënoon a mag ci ñu doon noonu woote yonti yàlla no ayuha almuslimun inna intishar manhaju llahi taala bayna annas yuhaqiqu aladla walmusawat walukhuwa wa yasunu kaafatu alxuquq wa yuhaddidu jami alwajibat mbokk yi ci yàlla soppe yi xarit yi ma ne tasaaroo njub tasaaroo yoonu yàlla mu tas li yàlla bëgg mu am ci biir nit ñi bu tasoon dafay fexe te am justice day régner équité ñëpp a yem te mooy lu ñu tuddee égalité allahu akbar ñëppay doon ay mbokk fraternité te it wa yasuunu kaafat al xuquq mbooleem droit yi dañ leen di ñoŋal ba kenn jalgati jëm ci ñoom waaye wa yuhaddid jamiu alwajibat wareef yi itam dañ koy limité kenn ku ne lii mooy sa wareef lii mooy say droit mbokk jullit nii ñu bari dañuy laaj seeni droit te du ñu taxawee seeni wareef bu boobaa nag bu fekkonte ne jéem nañoo góorgóorlu ba li yàlla bëgg daal di tas reñe lii lépp day doon lu yomb kon ku taxawee sa wareef daal di jot sa droit mbokk yi soppe yi وفي نفس الوقت يقضي على الجميع المظالم wala yarda bil fasad abada nee na ci même période bi même waxtu bi mbooleem tooñi mbooleem injustice yëpp dañ ko fi jëlee te it yàq ak yàqute dootul fi amati wa dalika yaqdi ala al kibr wal isticla wa hina idin yazulu kulla kulla maalil mala min ja wa sultaan ليزول أساسه ودعائمه ومن هنا نفهم سر العداوة bayna al mala wa da'wati nabiyillahi huud alayhi salaam mbokk jullit nii lii mooy li xew nee na loolu mooy tax bu tooñ jeexee yàq jeex yàq kenn gërëmu ko ndax loolu la borom bi subhaanahu wa taala ay bu ñëpp defee seen yitte àllaaxira kenn du yàq ci bu ñëpp defee seen yitte ne ëllëg kenn du tooñ kenn kenn du xeeb kenn kenn du jalgati jëmee ci kenn xam bi yàlla xam loolu moo tax mu wax loo Qaaruun nga xam ne yitteem yëpp mooy teg bët ci alalam inna qaaruna kaana min qawmi muusa fa baga alayhim wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatixahu la tanuu bil li ci topp wabtaghi fi ma aataaka allahu daara alaaxira wala tansa nasibaka min addunya wa axsin kama axsana allahu ilayk wala tabgi alfasada fi l ard inna allaha la yuhibbu almufsidin allahu akbar mbokk yi soppe yi kon loolooy li am kon yaqdi jamii almazalim wala yarda bilfasadi abada allahu akbar allahu akbar allahu akbar walidalika yaqdi ala alkibr walisticlaa mbokk yi soppe yi xarit moo tax yàlla ne utal lépp lu la yàlla defal ci teraanga teraangay alal teraangay daraja teraangay nguur teraangay teraangay xam-xam bu mu ci mën a doon ut ci àllaaxira moo tax doo bew doo jalgati doo xeeb kenn ndax da ngay xam ne joxoo ko sa bopp yàlla la ko jox te joxu la ko éternellement mais da la jox pour lan pour nattu la diggante bu gàtt lay doon te dina la ko xisaab mais du tee itam balaa yàgg itam mu jëlee ko ci say loxo jëmee ko ci ñeneen moo xam daraja la moo xam alal la moo xam ab pal la moo xam xam-xam la bax bi ngay juddu indiwaale woon tous te loolu yàlla firndeel na ko ci alquran suratu nahl alladi axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a wa jaala lakum alsamaa wal absara wal afida allahu akbar yàlla nee na mooy buur bi nga xam ne moo leen génne ci seen i biiru yaay yëpp dawalal sa xel ak ku doon yéen ñëpp boobu xamu leen tous mu indi leen jumtukaayu xam sam mooy looy déggee pour mun a ràññetle pour mun a xam loolee lu mu xool gis yàlla nee na maa ko def dafa defalu leen ko seen bopp maa leen ko defal defal loo xam ne moom ngay capté te mooy xol bi allahu akbar huwa alladi axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'an wa jacala lakum alsamca wal absaara wal afida allahu akbar mbokk yi soppe yi xarit yi suratu naxli kon huwa alladi mooy buur bi nga xam ne mooy ki leen génnee ci seen biiru yaay ngeen ñëw fii ci àdduna allahu akbar te muy dëgg it bi ngeen ñëwee fii mu def ci yeen ay jumtukaay xam jumtukaayu xam-xam jumtukaayu dëgg mooy lan mooy nopp mooy bët mooy gët waaw ak lan ak xol wallahu axrajakum min butuni ummahatikum wallahu danay faral di wax ne booy jàng alquran jot fu yàlla di wax ne wallah allah huwa allah la ca topp nit mënu ko waaw allah nga jàng alquran ba mu allah hu lladi huwa llahu lladi la ca topp doomu aadama mënu ko kon wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a wa jacala lakum alsamca walabsaara walaf'ida laallakum tashkuruun suratu naxli aya 118 allahu akbar suratu naxli aya 178 78 pas 118 mais 78 allahu akbar mbokk yi soppe kon loole nga xam ne moom ngeen déggoon yàlla leeral ko ci woote bi yonti yàlla huud li tax ñii noonu dëgg li tax ñii noonu ku baax di tax ñii noonu ñee parce que am-am yu mu yor dañoo yaakaar ne mbiru at foofu rek lay yem lii bu leneen taxawee loolu dañ koy ñàkk ragal la ñàkk dina leen jural keneen ku taxaw seen kanam ñu faagaagal la lii mooy li xew lii mooy li am kon mbokk yi soppe yi xarit yi loolooy li am kon lu la yàlla defal lum ci mën a doon ut ci lu mu ci mën a doon moo xam xam-xam la moo xam am-am la moo xam daraja la moo xam ab pal la lu mu ci mën a doon ut ci àllaaxira mooy tax doo noonu kenn doo siis kenn doo iñaane kenn doo soxore kenn doo faat kenn doo xatal kenn doo fenal kenn ànd ak ne fen garaaw na lool waaw mbokk jullit ñi lii mooy li xew lii mooy li am mbokk yi soppe yi xarit yi ut yàlla waaye wala tansa nasibaka min addunia waaye bul fàtte sa cër fii ci àdduna ndax fii ngay liggéey lu tabax sa kër gële àllaaxira boo tabaxee fii te fee nga ràppal ko doo fa bëgg a dem buy dem foofu day métti ma di koy misaale waa joo xam dafa dem bitim réew di liggéey lu mu liggéey rek lekk ko lu mu liggéey rek yàq ko foofu waxtu ñibbi jot na du bëgg a ñibbisi te xam na fii amu fi dara ñaata at la am bitim réew bu ñëwee fii jotu fee def dara mbokk jullit ñi lii mooy li xew lii mooy li nekk mbokk yi soppe yi xarit kon wala tansa nasibaka min addunya bu ci top wa ahsin kama ahsana allahu ilayk rafetalal ni yàlla rafetalee jëmee ci yow wala tabghi alfasada fi l bul ëppal bul yàq itam ci kaw suuf bul ànd ak ku yàq bul dooleel kuy yàq bul dimbale kuy yàq inna allaha laa yuhibbu almufsidin ndaxte yàlla buggul yàqkat yi yàlla buggul kuy yàq suratul qasas aya 77 fii ci suratul naxli wallahu axrajakum yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiru yaay laa taalamuuna shay'a xamuleen dara wa jaala lakum alsam'a wal absaara wal af'ida mu defal leen ay déggukaay ah jumtukaay la pour xam defal leen ay gisukaay jumtukaay la pour xam defal leen ay xol jumtukaay la pour xam laallakum tashkuruun allahu akbar suratu naxli aya 78 soppe yi xarit yi ñu may signaler ne waxtu bi jeex na ci jotaayu fukkeel ak juróom benn mbiru technique la du ko wees lu may def mooy obéir jéem a topp ndigal jéem a teg ma ñaan leen ngeen teg seen baaraam foofu bu ñëwee ci jotaayu fukkeel bi ak juróom ñaar arrakiza athalitha ar rasul qudwa alayhi salaam lidduaat yonente bu ne yonente bu ne royukaay la ci ñiy woote ñamu bàyyi gannaaw ñuy woote yal na yàlla defal leen jàmm defal leen ko yal na yàlla defal leen suturay adduna ak kër gi kaddu gi jibee yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla soqali ci borom kër gi waaye ci njiital kër gi di jaak ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi yal na yàlla sàmm leen aar ci ay monteur ay technicien ak i caméraman ñëpp yal na yàlla defal leen tawfiq sàmm leen defal leen promotion ci seen liggéey kër gi itam yàlla soqali ko ba mu raw mboolem kër yi ci biir réew mi seen mbokk seen xarit Aboubacar Faye wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.